asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alxaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi nag euh, bu ngeen gisee ñu taxaw fi ngeen xam ni tabaarakallahu tool ba nga xamante ni Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sall Maktoum moo ko daan ànd ak Serigne Abdoul Aziz Al Amin muy Medinatu Boulel ci ndigalu Serigne Babacar Sy Mouhamadulil Mansour xalif général de Tidiane tabaarakallahu jaar ci doomam yu tedd yooyu ba tabbi ci loxol Serigne Mouhamadulil Moustapha Sy ibnu Serigne Abdoul Aziz Al Amin moom la ñu jàpp le 12 novembre incha allahu rabbi di woo képp koo xamante ni jullit nga képp koo xamante ni dégg nga annonce bi ñu lay woo incha allahu rabbi ci tool boobu nga xamante ni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum moo ko àndoon ak Serigne Aziz Al Amine tey ba mu tabbi ci loxol Seydou Mouhamadul Moustapha Sy ak njabootu Serigne Abdoul Aziz Al Amine yëpp képp kuy jullit ñu la ciy woo le 12 novembre la ñu ngi taxaw nag nga xamante ni tabaarakallahu taalibi ci kër gi lan ngay wax ci bis bi waaw bés bi de tabaarakallahu li ci Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine daan wax rek élage hmm. maa xam sama njaboot dëgg dëgg dëgg nga fekk si ma Medina Boulel kon képp kuy njabootu Mawlaaya Cheikh Abdoul Aziz Sy Al Amine bés bi ñu ngi la koy fàttali le 12 novembre incha allah le 11 ñu ngi déparé fii incha allah le 12 di bésu ndeqali kon képp koo xam ne taalibe nga ci xadara bi taalibe nga ci kër gi rawatina taalibe Cheikh Seydi Abdoul Aziz Sy Al Amine bés boobu ñu ngi la koy bàyyiloo xel ndax Serigne Abdou daan na wax ni buleel képp ku ma fa fekk. gëm naa ni sama njaboot dëgg dëgg dëgg nga kon képp kuy njabootu Mawlaaya daal ñu ngi lay wax ni le 12 novembre ku am ndox indil ku am ëllëer indil ku am leneen ak gopp ak leneen ak leneen indil bés bi daal bésu daara ji la bésu xadara bi la rawatina xadara Cheikh Seydil Hadji Malick ñu ngi ciy woo képp kuy jullit ñu ngi ciy woo murit tiijaan xaadir laayan bàyyiwuñu kenn kuy jullita ku dul jullit bés bi sa bés la ndax damay wax toolu Serigne Babacar Sy dey ku ci ñaq ku nekk boo boo ca ñaqee dem ñibbi ñaq googu koo yéenewul aljana bul ko sangoo kër googu ci Mawlaay Cheikh Abdoul Aziz Al Amin laa ko daan déggee kon bés baa ngi noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullah tabarakallah jërëjëf mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu maa ngi fi nag ak euh, euh, Sidna Ousmane loo moom it euh, di koo xamante ni jàmbaar la ci tool yi jox ko rek mu wax Ousmane lan ngay wax ci tool xanaa ginnaaw rek bu la gërëmee El ci annonce bii nga def macha allah waaye li sama jatbaat wax rek matal na lépp Mawlaay moo ko daan wax ni ku ma fekk bu leen rek ma xam ne sama soppe nga kon nag bis boobu ni ko sa waay waxee rek le douze la na ñëpp ñëw ku mënul ñëw tamit loo am ndox lépp luy kiiw tool rek incha allah boo ko amee nga indi ko nga ñëw ci tool ba parce que li si sama jarbaat wax moo ci nekk ñàq ba ku fa ñàq ñàq ba du niil yàgg nañ ko def kon nag ñu ngi ciy woowaat ñëpp rek ñëpp ñu préparé ko bàyyi seen xel le 12 incha allah ñu àndandoo ko ca toolu Bulel Madina si yàlla nañ ci yàlla eggalee ci jàmm ak salaam. jërë ngeen jëf mbokk yi am na ñoo xam ne nag samedi bi la ñuy dem incha allah rabbi fanaani fa ñu xëy dimanche le 12 di ndekki li kon nag képp ku mën a dem samedi mën nga ñëw fii ci kanamu euh, jumaay Serigne Babacar Sy 3 euh, heures car yaa ngi fi camion yaa ngi fi ñu ànd dem am na ñoo xam nag dañuy xëy fajar ci dimanche bi dem waaye incha allahu rabbi ñu ngi woo en unanimité ñëpp ñëw di wax ne nag Cheikh sama xarit bi sama jàmbaar ji moo ngi nii junni baa ngi nii barke Seydina Muhammad fu ma fekk jox ma junni barke alxuraan yéem na ma lool. billahi wallahi wa taala. nee na maga leen boole. ne. fu ma fekk jox ma junni jaaxal na ma lool kon nag mbokk yi mu ngi noonu maa ngi ñaanal Cheikh yàlla ko yàlla fay ci barki yonent bi nee na mag moo boole ni ko fu mu nu fekk mu jox ma 5000 Médinatoul Bouleye le 12 incha allahu rabbi jërë ngeen jëf.